asalaamaaleykum mbokkee xaritu internet ñu ngi leen di nuyu di leen sant ku ci nekk sa tur ak sa sant di am mbégte bu baax a baax a baax toogaat fii tey ñu ngi fii ci Grand Yoff euh, fekk fi imam Khalifa Babacar euh, Babou euh, moom nag mu nekk ku ñu ràññeeku jiite benn collectif des imams de Grand yof tey dañu am mbégte fekk ko fi fas yéene waxtaan ak moom gis nañu situation actuellement fi mu toll ci Sénégal jumaa yi ñu ngi tëjee boobu ba léegi te ñoom imam lañu ku nga xam ne imam ku wax imam wax juma wax jàkka te booba léegi amul benn jumtukaay boo xamante ne ni dégg nañ ko fii euh, jëm ci ju ci ci ci imaam yi tey nag dañu am mbégte fa yéene waxtaan ak moom comme imaam ñu ngi am mbégte di la fekk fii ci Grand Yoff di la wax asalaamaaleykum di la bàyyi nga nuyoo suñu internet yi ñu tàmbali waxtaan bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu internetu seen Senclic yëpp di leen ziar di leen baalu àq ñoom ñëpp euh, vraiment di leen wax marhaban imam dañu gis ne euh, yow da nga jiite benn collectif des imams de Grand Yoff ñu bëgg xam collectif boobu noonu tey euh, depuis ñaat at ba léegi collectif bi mu ngi yaa ngi ko jiite fii ci Grand Yoff waaw jërëjëf collectif des imams de Grand Yoff ñu ko créé il y a de cela mun naa wax quatre ans cinq ans cinq ans sax mu nekkoon mais activité am dëgg dëgg dëgg bu mu commencé ba léegi def naa war a mat quatre ans parce que dañu seetlu woon ni imam yi dañu tasoon bon bu autorité benn autorité bu ñëwee Grand ñu soxla imam dañuy woo ñu xalaat ne war nañ ko mun def dajale imam yëpp yàlla dimbali ñu si ñu boole tous les imams de Grand Yoff on a même élargi à certains oulémas yoo xam ne pour bu dara amee ñu mun yëkkatee ndoo di tegandoo alors on les a regroupés Grand Yoff cent 66 quartiers wax dëgg yàlla dem nañ tamit ba quartier bu nekk collectif aussi maayee na fa ba jël imam bi bokk si boole ko si biir ñuy gis seen bopp ma xam ne ñoom ñëpp individuellement ñuy wootante di déggante. di daje tamit su ay assemblée ak yeneen activité bu dara amee ñu génnandoo waxandoo lu ñu xam ne lii imaam war na si mun wax kàddu sans pour autant ñu bëri wax dinañ ci génn dinañ ci jëf waaw kon ñu sant yàlla Euh, imaam yow da nga jiite kàddu imaam yëpp yu nekk fii ci Grand Yoff euh, tey dañu am benn yitte bi nga xamante ne dañ fara waxtaane mooy mbas bi nga xamante ne xamuñ ci Sénégal te dañ ko seetlu muy coronavirus bi mu amee ba léegi boobu ba léegi ñu tëj jumaa yi lii mooy presque weer ak lu teg euh, jumaa yi ñu ngi tëju te ku wax imaam wax jumaa wax jàkk yow lan mooy ci sa xalaat ci ak situation fi ñu toll ci loolu. dañ koy sant yàlla sunu borom subhaanahu taala lépp lu am yàlla la. xëy na moom moo buggee noonu moom moo ne woon heure sàngam ba heure sàngam jumaa yi du ubbi mais xool kenn ko tëj mun nañ koy jullee si jàkka mais mun nañ jullee feneen parce que julli gaawul wàcc nit kon dañ ciy sant yàlla rek ça fait un mois manqué nañ nag parce que kii di imam di moske ku wax jàkka rek ku wax imam jàkka ngay wax parce que jàkka imam mbooloo bi lay jiite fa mbooloo bi nekkatul rek imaamam léegi benn. institution la boo xam ne daf koy incarné ci yeneen ak yeneen ak yeneen mais fonction bu njëkk ci ay fonction mooy mu jiite julliti ci waxtu juróomi jiite leen si yeneen ibadaat si yeneen yu war fi yëpp mu ci ànd ñoom di leen si jàppale di leen leeral seen wàllu jaamu yàlla kon tey booy xool tëj nañ jàkka yi métti nañ nag wax dëgg yàlla dafa métti trop parce que c'est difficile am na ñoo xam may waxee yow nii am na ñoo xam dañuy ñëw ba si jàkka bi bu dul dara ñëw xool jàkk bi rek delluwaat pour wax la dañu nostalgique daf leen manqué trop di wax ni jàkk yi daal vraiment manqué nañu trop trop trop ñu ngi ñaan yàlla delloo feebar yi fu mu nekkoon wax dëgg yàlla ah, muccal si ñëpp ñu mun delloo suñu activité parce que vraiment tamit weeru koor baa ngi ñëw te ku wax weeru koor mu wax weer de pénitence la mais tamit weeru jaamu yàlla jullit ñuy bëgg xam seen jaamu yàlla dañuy bugg di gën a nekk si jàkk yi fa la ñuy defee nu mu tudd tafsir alquran yi fa la ñuy waxtaanee fa la ñuy gindekonte am ñoo xam ci weeru koor la ñuy rectifié waat ñëwaat jàngaat amaat jàng yu bees tey loolu lépp tey ah espérons que balaa koor gi jeex wala balaa même muy commencé lii dañ yàlla mën na ko yàlla yàlla na ko yàlla def en tout cas métti na mais tamit wax naa ko sànq ma ni du julli kese wala boog du ci jaar bi kese xëy na parce que tey wolof day wax yàlla tëj bunt tëj parenteer dañ koy tàmm di wax kon euh, am na te suñ ko amulee ñi ngi xool yeneen kano yu mun jaar pour jot suñuy suñuy ñi nga xam ñoo ñuy déglu mooy mooy mooy askan wi nga xam ay jullit lañu yaakaar si ñun ñu leen di fàttali yàlla réseaux sociaux yi ñu ngi si rajo yi ñu ngi si yéen ñi tey yéen ñu defal lu mel noonu tey te yéen ñuy offrir benn tribune boo xam ni mun nañ ci wax ak nit ñi ñu dégluñu te imaam loolu rek la soxla fàttali nañu yàlla kàddu yàlla rek fàttali ko ak ak tamit euh, mooy kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa te boo waxee kàddu yàlla day yóbbaale kàddu dugg see Sénégal ba léegi yéen imaam yi rawatina sax ci fii ci Grand Yoff yow nga jiite ko euh, Khalifa Ababacar Babou euh, jiite collectif bi te ko wax imaam wax jiite ci quartier wax ci lépp parce que imaam tey fu mu toll nii bëri na ci quartier yi gars dañu yaakaar ne imaam yi ci jàkk yi la ci jumaa jeeg waaye imaam yaa ngi ci biir kër yi di defar ci ménage yi di defar leneen ak leneen bi mbas bi amee ba léegi yan sensibilisation yi ngeen ci jël yu nga xam ne mën ngeen ko fii au niveau de Grand jàkka nag comme ni nga waxee tantôt rek wax nga ko léegi sa biir wax jàkka tamit euh, du julli kese imaam du julli kese l'islam du julli kese loolu dogmu la rek volet dogmu bi mais si wàllu mode de vie si wàllu dundin beeg lépp imaam dafa am taxawaay bu mu war def imaam leader la boo xam ni amul benn affaire boo xam ne rek parce que dafa transversal ay ay ay compétence am si wàllu l'islam amul fenn loo xam ne rek moom bokk si parce que yàlla yónneetul yonent kon moom moo fi représenté ñooñu di leen fàttali li yàlla wax kon tey moom tey amul benn ruq boo xam ne rek nit ki jullit bi soxla na ko imaam bi amul foofu du domaine de compétence am si lépp nag war na am angalu angalu lislaam moom war na ko mun génnee war na mun niit lépp lu ñu mun soxla ci mun na ko niit ci ci làmp ci làmp ci làmp diine kon loolu moo tax taxawaayam loolu la boobu léegi xam nga nit ñaa ngi juddu ni ñaa ngi dee takk yaa ngi am yëpp ñu ngi am mais dañ koy def ni nga xam ni noonu la ñu ko sunu lislaam waxee mais tamit li nga xam tamit ñooñu la ah nu mu tudd ñu administré ak ñi xam parce que yàlla moo ñu wax ci alxuraan ni fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun mu ne laaj leen ñi xam bu fekkee xamu leen comme ñun xamuñu nag mbas mooy lan xamuñu nan nga koy jàppee xamuñu nuñ koy moytoo xamuñu nuñ koy amee on est obligé ñu déglu docteur yi parce que docteur lañ mun déglu ñooñu mun gindi ñoom ñoo xam ñun xamuñu bu doon ci wàllu aaya la bu ñuy wax ci wàllu fas sa yeeg leneen duñ leen ci laaj mais lii wàllu wér-gu-yaram la ñun comme suñu xam-xam màccul ci loolu dañu wax yàlla daf ñu ne laaj leen wa ulul amri minkum yàlla ne nag laaj leen ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo xam fas ole la laa taalamun mu waxaat ñu ne atiullah wa atiu rasul wa ulul amri minkum mu ne topp leen yàlla topp yonente bi topp ñi yore pouvoir si yéen kon booy xool kon mooy administration moo tax mu yore moo tax mu sañ indi arrêté ne tëj naa jàkka yi parce que gis naa ci loolu la ñu mun moytoo mbas mi mu gën a développé comme que nag noonu la demee ñu ne leen topp ci loolu ñoom loolu bañ koy def xool nañ ko gëstu nañ ci ak borom xam-xam yi ba yaakaar nañ loolu ñu nag on leur fait confiance parce que ci feebaroon tey ñu yóbbu la kër docteur da nga naan nemm ñu jël teg la ay machine teg la ay ay weñ dugal la fu nekk te doo ci tax wax dara ndaxte ñoom nga yaakaar ñoo ci xam segam ñoo ci xam la ñun on est obligé tamit ñu déglu leen ci loolu ànd ak administration bi si loolu ak ak à contre cœur nag neexu ñu mais on est obligé de s'accommoder Euh, dañuy dégg it euh, gars yi di wax ne yëf du affaire de euh, feebar du virus ak yooyu maanaam balaa la bi yàlla wàccee est bokk nga ci imaam yi nga xamante ne gëm nañ ne yëf yi balaa la bi yàlla wàccee. xam nga yàlla subhaanahu wa taala saa yu indee dara rek am na lu tax dama koy expliquer keroog ci benn jataay ma ni leen maître bi yore classe am di wax taisez-vous taisez-vous bu bu énervé ba jóg rek front contre la table lay wax ñëpp lay dóor du bàyyi ku wax ak ku waxul. di fi nekk naan mais madame man bokk ma ci doo la ci doo la ci ñëpp lay tëj ñëpp lay dóor yàlla tamit mais ñun lu mun am musiba mun am dañ ko war a delloo si yàlla wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dee rek taxul ñu ko war a wax kaa bi ci la bokk parce que lii musiba la kon lii yàlla da ko indi tamit pour bàyyi loo xel parce que quoi qu'on dise xam nañ ñëpp xam nañu loolu jar sax parce que lu ne fànkeen ko jeex mooy bi bari na ah naka su lu noonu bari na def lu naqar yàlla bari na te yàlla muy kilifa goo xam tey nga di ko def loolu lépp mu toog jàpp ñaamaram rek fayam xajul si ñun tey bu yónnee malaaka tey pour wan ñu ne métti métti tam malaaka day rëy si ñun mais pour delloowaat nit ne nit yow doo dara te insignifiant dafa indi benn benn soldaaram bu ndaw boo xam ne matul sax un dixième de millimètre ñu di ko wax Covid 19 mu ñëw rek tas àdduna bi bloqué économie bloqué politique bloqué santé bi sax bloqué lépp lu ñuy yëngatoo mu bloqué matul dara lu ndaw la lu ndaw xam nga dañoo seytaane dafa am doon mais seytaane jinne la am na am na dayo mën na lu bari mais xoolal yàlla ki mu indi un être minime bu ñuy wax Covid 19 muy muy tukkal adduna bi tey kon ñun ñëpp dañu war delluwaat si yàlla def ay istixfaar tuub te muy dëgg si ñun lu bon ku nekk xam nga loo doon def ndaxte ku nekk yow yaa gën a xam sa bopp bal insaan ala nafsi basira ku nekk yaa gën a xam sa bopp ku nekk am na xëy na. mooy boo xam ne mooy nga ko wala nag nga sudul noonu ku nekk na wax ne man jàngoro bi pour mu delluwaat lu dul ci wàllu sanitaire man ci mi ngi ci man mooy nga tuub dellu si yàlla loo daan def ci lu bon nga ba ko loolu man gëm naa ni effectivement loolu bokk na ci lu mun tax yàlla delloo ko ndaxte amul dara loo xam ni dafa nekk hasard yàlla lu indi rek am na lu tax loo gis am na sabab ñun nag dañ ko dul gëm xëy na wala parce que da ngay nekk un scientifique yow doo gëm loolu mais effectivement yàlla moo moom la neex mu yónn lala pour la pour la defu leen nag leneen mu neex tey rek mu indi lii il faut ñu posé wu question yàlla nag ulil albaab lay waxal mooy borom xel kon il faut ñu ñu gëstuwaat xam ne ñu tamit ñu ngi mooy te bés bu ñu delluwaate si yàlla rek yàlla mu ne man maa ngi ku dellu si waat ñëw si man ma dellu ni ma meloon ak yow kon nag nañ delluwaat si yàlla tuub wax ko di moom mooy lépp te wax rek tuub na yàlla baal ñu mooy ju ji nañ ko din parce que yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa su amee lu bon lu nekk ci dara jullit bi da war a xeex su ko mënul xeex na ko xeex ak làmmiñam su ko mënul mu naqarlu ko ñun waratuñu yem ci naqarlu kese dañ ko war a xeex ak suñu làmmiñ di ko dénoncé yu bon yi fi am ñëpp jàpp si ñu xam ne loolu parce que tey yàlla buy ñëw ñëpp ñëpp ñëpp lay ñëpp lay lor tey gis nga tey dal na ku nekk dal na autorité dal na militaire bàyyiwul benn ko sociale bàyyiwul kenn kon yàlla yàlla daal musal si lii nañ tuub dellu si yàlla yàlla dindi ko fi Euh, mu nekkoon suñu mbokk suñu xarit imam xalifa Ababacar baabu nekk fii ci Grand Yoff jiite collectif des imams de Grand Yoff yëpp euh, tey imam dafa am benn mbir bi nga xamante ne nii euh, dafa dafa leen laal économie côté économie boobu ngay wax ku wax imam wax jàkka yi wax wax jumaa yi wax daayira yi wax wax wax ngenteeg takk yeek tudd yeeg ak yuy demee noonu tey lu xew dañ naan imaam imam imam te dañu gis ne loolu dafa bokk ci facteurs yi nga xamante ne yuy sukkali imam yuy dundal imam yi ndax mbas bi yéen imaam yi donc seen situation ci wàllu financièrement naka la demee est-ce nguur gi mu ngi ciy taxaw est-ce que bonne volonté ñu ciy taxaw ak yéen seen position fu mu toll nii ci réew mi lan mooy ci seen xalaat. waaw xam nga fonction imam dafa nekk fonction boo xam ne fonction bénévole la pour la plupart des mosquées qui sont au Sénégal laay wax parce que yeneen dëkk dañ leen taggal ay ay salaire fonction la boo xam ni amul fay kenn du la ci fay moo tax la nga imam yi ah ay sonde la jox ak léeg juróomi dërëm ak léeg-léeg nangam ak gis nag ay koñ yu baax seen jàkka tabaski ñu yor ko koor ñu yor ko fin lu ñu ko dimbale am na mais état loolu yëpp état la dimbali rek am loo ne état la mu jàppale les imams jox leen ay salaire amuñ ko léegi nag rawatina nag taalibe taalibe doxantu mooy mooy mooy mooy kiyom mooy salem ci biir doxantu ci la nga gis kenn ku bokkal dara jàkk la nga gis gis imaam ko soxla imaam donte loolu te jàkk mënu ko dindi mais ñu xam ni activité yooyu nag moom ñun lu mu ñu wàññi man surtout sur le plan économique mais man surtout sur le plan relationnel sur le plan chaleur sur le plan dund sama diine man jàkka fa la ma manqué mais du côté boobu parce que côté mosuñu ñëw fenn ñu ne nañ fay imam bi nangam c'est rare sax nga gis kenn ko dem tuddal nit mu jox la paas am na mais am na ñoo xam dañuy yaakaar imam bi sax mu war a génne jox leen mais imam il faut daal man ñu ngi ñaan état du Sénégal ni mu ko defalee ak ñeneen si ci koñ yi ñu jàppale samit tamit imaam yi xam ne ñoom soxla nañ ko parce que imaam yi ay ndongo daara lañ tey tëj nga daara yi parce que mbooloo bu ñu daje la xale yi tamit duñu yarwaan yi am ñoo xam tey yóbbu nañ seen ay taalibe bitim ñu euh, mu tudd seen kër yi ñu dellu fa kon ñooñu tey ils sont euh, nu nu mu tudd je ne dirais pas la dèche mais ils ay ay ay ay ñu soxla ndimbal lañu tey ñooñu vraiment delluñ ci ci ci ci wu métti parce que amuñu lu ñu dundee ñu il faut état tamit bàyyi na xel jàppale leen ñu ngi ñaan nag aide bii di ñëw tamit état indi ko mu bañ leen mooy parce que vraiment délai imam yi sonn nañ trop trop trop ci affaire bi fu mu toll nii ñoom booy xool ñu gën a sonn ci la bokk parce que imam du ko wax ne gën di yoraan imam mosoo gis mu yoraan imam du wax ci normal laa la wax du wax pour après su pare nit am lu mu génnee jox ko suy wax yàlla ay kàddu yàlla lay wax te léeg imaam wax ba pare li mu wax du neex kenn ci ñi toog parce que xoolu ci loolu yàlla ci xool yàlla moo yor ay dundam. yàlla moo ko yore wërsëgam yàlla moo ko yore mais dafa am ñu mu ko booleel ñu mu ko booleel mooy ñi mu dëkkandul ñooñu am na si ñoo xam ne fàttewuñu imaam yi mais kenn mooy ki njëkk mooy suñu kilifa ñun ñëpp mooy l'état du Sénégal tey ba mu leen tëj jàkk jàkk parce que mooy suñu kilifa ñun moom rek la ñu doon déglu man fii ba ñu waxee tëj jàkk dama ne man du ma tëj tànk indil ma kayit bu dul kayit damay kon ne julli kayit moo ñëw ma doog a ma doog a ma doog ànd ci li kayit wax ma tëj ma tëj jàkk ji yaakaar ni moo gën si ñun kon kooku noonu diñ def loolu moom moo war a ñëw combler gab bi nga xam ne moo fi manqué imaam tey am na ci ñoo xam tey xëy na ison ont des te duñ ko wax imaam nag du gën di di jàmbat parce que day noppi rek moo tax ngay ñëw di ko mun déey fekk na yàlla xam na moo la gën soxla imaam ñaata nit ñoo koy déey par bis ay soxla te ñooñu moo la gën nekk dans le besoin mais sax moo fi nekk ak xëy na yaakaar imaam am na ku ma xam parce que imaam ñëw waxal nit soxla moo gën a gaaw mu wax soxla boobu kon ñu bàyyi xel imaam yu baax a maa ngi koy wax nag seen seen seen seen auditeurs yi ak seen euh, mbokk yi xam ñu leen déglu ñëpp ah, ñu bàyyi xel imam bi ñu dëkkal parce que quand je parle je ne parle pas mais à travers moi les imams ñi nga xam ñoo nekk si kon ñu jàpp leen baax xam ni soxla nañ ko trop voilà. Euh, mbokkee xaritu internet yi dégg ngeen ko noonu imaam yi sonn nañ trop imaam yi sonn nañ euh, mu nekk kàdd yi nga xamante ne nii xalifa Ababacar Babou nekk fii imaam ci Grand Yoff jiite collectif des imams de Grand Yoff yëpp dégg ngeen ko noonu imaam yi amuñu salaire imaam yi fayeekuñu weer bu dee te ngénte ñu ne imaam ku dee ñu ne imaam takk ñu ne imaam ñooy nekk ci jàkk yi rawatina ñi nga xamante ne ni chaque jour ñu ngi ñëw ci imaam di leen fëgg di dee kon ñooñu jar nañoo jàppale donc mbokk yi je pense que dégg ngeen ko loolu képp koo xamante ne yaa ngi sa koñ eh, nga tane tuuti doxal ci imaam nga jàppale leen rawatina actuellement fi ñu toll nii mooy message yi nga xamante ne ni eh, Khalifa Ababacar eh, Babou di imaam fii ci Grand Yoff wax na ko adressé ko état bi aussi tamit na état bi dimbale imaam yi see leen jàppale leen parce que am na ci solo loolu Euh, sa dernier mot ci ci wax ji ñu ngi am mbégte ak euh, kontante bu baax ci dalal bi ñu dalal fekk nañ la fii nga yaatal ñu ñu ngi lay wax sa dernier mot aussi tamit sa fin sa noo gisee weeru koor gi ak feebar bi di ñëw. kaddu bu mujj day nekk ñaar rek ci ñaar laa bëgg wax bu njëkk bi mooy si koor gi di ñëw ni ñu koy wax mu dal ak jàmm mu nekk gan goo xam ne moom bu demee yóbbaale gan nag kenn mu ko tere xool ak déglu. ñu bàyyi waat xel ci ko yu baax normalement un bon musulman waruñu waruñu ne gan gee ngi ñëw sax nga defaraat toogaay yi dala si waroon fekk mais ñoo xam ne chance la bu mu indiwaat ñu mun a rectifier waat ndaxte yàlla dafa ni ne yónni naa koor ci yéen la'allakum tattaqun maanaam pour su paree koor bu jeexee yàlla benn bit la ci soxla rek mooy sunu ngëm yàlla yokk bu ko defee ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci wàcc koor gi bu ñëwee ñu dalal ko ñu xam ne gan la boo xam ni yéen sallallahu alayhi wasallam wax na ni ku ko woor ni mu war a woor yàlla bàlla say bàkkaar yëpp te ñu ñëpp ñu sommes des pécheurs dañoo bari bàkkaar mun na am koor gi bu ñëwaale bu ñëwee ba dem koron day balewaale kor naa bi man gëm naa lool bu buñ ko dugalee ci yéen yi def ko ci ñaan yi koor gi koor gi du fi bàyyi corona bu yéen da koy yóbbaale loolu nag pas-pas la ak ngëm la ñoo ngi ciy ndokkeel jullit yëpp di wax ni vraiment ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci weer koor bi na jàng alxuraan di gën a yokk jàkka yi amatul fu ñuy mun demee di ko defee en attendant bu dee dina pare en cours xayrun su fekkente ni duñ ko am nañu gën a góorlu si jàng alquran gën a góorgóorlu ci zikri gën a góorlu ci naafile yi naafile yi xam ne doon am ci jàkka yi nañ koy si biir kër yi parce que wax naa ne keroog ne père de famille chance la pour ñoom ñu xool seen njaboot julli kon waxtu bu ne jamono bi dañ ko waroon yee di leen julli muy muy suba tisbaar takkusaan timis gee muy juróomi julli mais rawatina weeru koor bi ça permet ñu toog seen biir ak seen papa yi ak seen yi war gën a waxtaan. yeewaat njaboot gi sensibiliser leen recentre waat leen recadré waat leen ci li nga xam ne mooy jàngale yàlla subhanahu wa taala xam leen loolu lan mooy l'islam mais nag koo su la sul du la muy ker ñuy waxtaan parents yi ñu gën a gëstu si wàllu boobu xam ne kenn ku nekk yonent bi sallallahu alayhi mu ne ku sàmm nga te yàlla dalay laaj li nga doon sàmm ëllëg ku nekk sa responsabilité dafa taxaw mooy ci wàllu boobu noonu parent bu ci xamul na dem laaj wax naa léegi ne fas alu ahla zik in kuntum laa taalamun sunu borom subhanahu laa taala moo ko wax beneen message bi ma koy adressé Sénégalais yëpp au delà des au delà des sa tudd appartenance religieuse muy ci wàllu feebar bi gestes yi nga xam ne mooy les gestes yi nga xam ne moom la ñu wax gars yi wax mooy raxasu yi fu ñu toll muy gel yi maanaam ak gel hydroalcoolique yi ñu war a jël muy masque yi bu dee obligatoire si yenn lieux yi ñu wax en muy obligatoire si ñëpp général nañ ko nañ koy porté distance yi ñu wax nañ koy def ñu koy ñuy moytu li nga xam ni euh, génn bu amul njariñ parce que génn bi su amul njariñ c'est pas la man man du ma génn ci lu dul farata fu mu toll nii da ngeen ñëw fekk ngeen fii ngeen ma fekk du ma géej du ma dem du ma dem fenn aw ma soxla dul soxla boo xam ni dama si waroon dem. réunion yi yooyu bàyyi dañ ko léegi natt yeeg yooyu gars yi doon def yëpp jigéen ñëpp booy xool léegi bàyyi nañ ko ñu gën a xam ni feebar bi lu am la du ay du ay ñii wax naan noo ay faux problème la lu am la ku mu nga xam ne amul. ku mu dal di nga xam ne am na ku mu ci dal mooy ni comme ni nit wedde yàlla rek mais ku dee xam lu xew feebar tamit ku mu dal di nga xam ne am na kon ñu ngi leen di waxaat ñu delluwaat ci geste barrière yi mooy raxasu di sol di sol masque bi di moytu tamit yenn yi hmm, bu ñuy bu ñuy dem ñu bàyyi xel yi nga xam ne moom la ñuy wax fu ñu war a dugg marché yi bu ñu dem surtout ñu bàyyi xel masque yi bu ñu dem ci marché yi ku jugee sa kër boo duggaat sa kër loo ñu ko mooy na nga raxasu maa ciy woo ñëpp bu ñu ko defee yàlla mooy mooy aar moom la ñuy waxal sunu mbir duñ ko ñaan kenn de dañuy moytuloo suñuy moroomu jullit ak sunu moroomu citoyen mais bu ñu ñaan kenn la ñuy ñaan mooy yàlla subhanahu wa moom moom moom feebar bi am la moo ko yónni si ñun moom feebar bi jaamu yàlla la rek bu neexoon yàlla tey jii moom mii minute bi soob du am benn du am benn efficacité parce que dangar moo am solo te yàlla bu ko neexoon mu dindi dangaru Covid 19 bi léegi dangar du am benn njëriñ dégg nga ko am comme ni muy amee ay ngi leen di am ñuy dox ba wér te duñ ko yëg am na. médecins yi wax nañ ko am na ñu muy am ñuy dox ba wér duñ ko yëg yàlla mun na ko def noonu tamit bis ni tey du ku ñu génnee feebar du koy faj wala dangar bi wàññeeku yàlla mën na ko yàlla ko def man kooku laay waxal yàlla yàlla defal Sénégal yëpp jàmm yàlla yàlla defal Afrique yëpp jàmm yàlla defal adduna bi jàmm yàlla tàppe xol ci barke weeru koor wi di ñëw ñëpp ñu gën si góorgóorlu yàlla yàlla defal jàmm waa Senclic maa ngi leen di nuyu di leen gërëm tey defal ngeen ñu benn tribune boo xam tey am nañ ko pour pour mun wax parce que amuñu ko woon